di kontaan ci dalal bi vraiment di rafetlu aussi sa liggéey ci commune bi en matière de sensibilisation de communication et de conscientisation surtout euh, dama bëggoon joxe rek sama avis ci débat bi nga xamante ne bii temps yi euh, lëmbe na un peu les réseaux sociaux au niveau de Mbao et qui concerne le compte administratif 2019. Euh, j'ai lu le document, je l'ai parcouru comme tout bon citoyen. Euh, mais boobu ak léegi euh, dama ne woon duma ci gaaw a wax parce que simplement dama doon xaar am la réaction des acteurs concernés entre temps dégg naa ci quelques réactions moo tax je me suis fait euh, une lecture maintenant après avoir recueilli leur avis pour xam maintenant comment maintenant il faut comprendre ce compte administratif. mais est-ce que mën nañoo xam ban réaction nga dégg ba mu la poussé la pour nga def euh, nga joxe ah, nga comment dire nga def réaction te monsieur. gis naa un conseil municipal bind ne la mairie n'a pas vocation de faire de l'investissement. ce qui est grave comme déclaration pour un conseil municipal. ah pourquoi vous le dites lu tax nga ne c'est grave. parce que mairie dafa war a def investissement contrairement à ce qu'il parce que c'est tout à fait le contraire mairie dafa war a def investissement su amee les moyen on ne l'impose pas à la mairie mais si la mairie a suffisamment de ressources pour mën a def investissement da ko war a def gis nga mon frère nga acte trois bi mu ñëwee dafa jox à toutes les mairies plein pouvoir pour ñu investir pour ñu outil yu suffisamment de ressources pour mën a régler les problèmes des populations rien n'empêche à une mairie de construire d'équiper et d'inaugurer absolument rien tey jii il y a deux ou trois jours je pense j'ai suivi l'inauguration d'un CM boo xamante ne bi le maire Baragay moo ko tabax au niveau de Yembal n'est-ce pas Mmh. Le maire Alioune Ndoye a reconstruit totalement l'école Bibi Ndiaye def ko un complexe scolaire de quatre ou cinq étages miir mm-hmm. yooyu noonu elles sont d'égale dignité ñoom ñëpp problème mu budget la tolloowuñu budget parce que effectivement tolloowuñu ay recet ak ay capacités de recouvrement. est-ce que mairie war na defar école. amoon na lu gënoon loolu c'est de construire carrément de tableaux mais quoi qu'il en loolu yëpp man euh, amul solo revenons sur le compte administratif proprement dit waxoon naa ko au cours d'une émission budget dañuy privilégier l'investissement dama koy waxaat budget dañuy privilégier l'investissement soo defaree sa budget sa prévision budgétaire nga def un milliard sept cent millions yàlla def nga recouvrer un milliard quatre vingt douze millions li la war mooy nga mettre le focus sur l' investissement mais recouvrer un milliard quatre vingt douze millions jël huit cent et quelques millions nga def ko sa fonctionnement jël deux cent et quelques millions nga def ko sa investissement loolu du ambition loolu manque d' la pour sa commune manque de vision la ça je le dis je le répète ils peuvent critiquer ou bien ils peuvent dire que kii budget état rek la xam mais budget les principes budgétaires restent les mêmes au niveau de l'État au niveau des collectivités territoriales ak au niveau des établissements publics les principes restent les mêmes il faut privilégier l'investissement pour nga mën a atteindre li nga xam ne mooy préoccupation population bi tant que defuñu loolu du ñu mën a régler benn problème population. donc suñu jàppee si gàttal ñoom privilégié wuñu investissement. c'est-à-dire man j'ai de doutes véritablement sur ça autre chose sur la forme sur la forme rek la présentation du document je le qualifie de médiocre parce que moi je pense que et ça un principe élémentaire boo jógee bay présenter un budget avec un rapport de présentation li nga xamante ni bi c'est un minimum d'information mooy si tu prévois d'avoir un milliard sept cents tu te retrouves avec 1 milliard 92 millions, l'écart, tu dois l'expliquer. Ça n'apparaît nulle part dans le document. Parce que l'explication de l'écart permet de faire des rectificatifs pour l'exercice à venir. Mais ça n'apparaît nulle part dans le document. Mais il y a presque 700 millions ou 600 et quelques millions de Aucun budget n'est atteint à 100%. état établissement public. collectivité territoriale ren seen seen bos 60 pour cent la. mais écart da nga koy expliquer dans le document laa wax. Hmm. je ne dis pas que da nga ko war a atteindre à cent si c'est 50 pour cent si sa 30 pour cent yëpp da ngay joxe ay explications ci li nga xamante ne ji tax na ba attendre loo say objectif à 100 pour cent. kenn mënul atteindre objectif à 100 pour cent mais tu peux donner des explications à quel niveau les recettes on baissé. mais mais mais mais Malick Sarr est-ce que mën nañoo xam waaw mën nañoo ba tey ñu ci budget bi ah, si moom la ñu waxtaanee. mais ñu dem bay def euh, rencontre tout le monde ñëw ñu gis tamit yenn conseils yu jógee te conseil ñoo fa war a nekk askan loolu tamit la nga si mën a sànni say kàddu. pour cent. Mm-hmm. état établissement public. collectivité pour cent la. mais écart da nga koy expliquer dans le document laa wax. Mm-hmm. je ne dis pas ko war a atteindre à 100 pour cent. si c'est 50 pour cent si c'est 30 pour cent yëpp. da ngay joxe ay explication ci li nga xamante ne bii tax na ba atteindre loo say objectif à 100 pour cent kenn mënu atteindre objectif à 100 pour cent mais tu peux donner des explications à quel niveau les recettes ont baissé mais mais mais mais Malick Sarr est-ce que mën nañoo xam waaw mënuñoo ba tey ñu ngi si budget bi ah, si moom la ñu waxtaane mais ñu dem bay def euh, rencontre tout le monde ñëw ñu gis tamit yenn conseil yu jóge te conseil ñoo fa war a nekk askan loolu tamit la nga si mën a sànni say kàddu en tant que <laughs> non man man ah ah. c'est-à-dire que de la mairie mm-hmm. wala du conseil municipal man du ma ci débat mm-hmm. du ma conseil municipal ku nekk la nga fay def sa engage ta responsabilité man je ne moi je préfère me focaliser sur le document qui est mis à la disposition du public. Mhm. que j'ai parcouru war ci joxe sama avis en tant que citoyen. mais dañ ne ñoom dañ ne document bi document bi baaxul daan ko génn un conseil ne chargé de com mu ne document bi baaxul bu gars yor neen chiffres yi baax c'est erroné te chiffres yi moom la ñëpp yor ça pose problème aussi ah. man le document qui a été mis à ma disposition. que j'ai lu man ci boobu a commenter te ce que je bari na ay mbir yoo xamante ni un document sérieux loolu war ci figurer un document sérieux donc je disais tout à l'heure que document budgétaire fu ñu koy defee di def le pourcentages d'exécution il y a des pourcentages qui ont atteint cent pour cent maanaam le plafond yanaa yoo xamante ne bi ils sont à quatre-vingts pour cent yanaa yoo xamante ne bi ils sont à cinquante pour cent mais gis naa ci yu bari yoo xamante ne bi dem na ba cent pour cent ça veut dire que c'est intégralement exécuté Maintenant, euh, j'ai entendu un conseil municipal dire que dépense de transport bi dañ ci jënd ay billets Makka pour convoyer ci ay nit yu dem Makka d'abord cette ligne là dépense de transport million millions 500 000 man j'avais de bonnes présomptions hein moi je me disais peut-être que lii ça a servi à prendre en charge des personnes malades biir mbaaw nit bu feebar mu war ko jëndal billet d'avion mu dem faju ji wala genre euh, loolu laa yaakaaroon quoi mais je n'imaginais pas que un tel montant danañ ko jël di ko dugal ci achat de biir pour nit dem makk dem màkk yàlla suñu borom mi ko santaane sax boole ko ci charte islam dafa ne nga def ko soo ko mënee soo ko mënee actuellement mairie Mbao waroon na am yeneen priorité yu dul jël onze personnes di leen yóbbu Màkka et ça a été confirmé par un conseil municipal et c'est extrêmement grave pour moi c'est même scandaleux parce que war ñu jël autant d'argent di ko consacrer ci ay dépense de prestige alors que am na leneen lu nga xamante ni bi ay priorité la ay priorité vitale ci biir Mbao réglé wuñu ko je vais vous expliquer boo xoolee euh, la rubrique le compte xam ne sa concerne les dépenses de santé liñ ci prévoiroon ils n'ont rien fait def def defuñ def nañ tuuti au moins non l'investissement mhm. santé rubrique santé investissement c'est zéro je vous le dis ils ont budgétisé cent un million di def commentaire di def analyse di def compte administratif war nga jël sa temps expliquer les écarts. donc y a quelque chose bon du ma wax nébuleux peut-être c'est des manquements loolu li may wax yoo xamante ne bii c'est sur la gestion administrative et budgétaire qui pose problème maintenant sur nébuleux ou pas ça c'est sur les les rubriques budgétaires c'est là où on peut parler de nébuleux ou bien d'opacité mais sur la présentation documentaire. loolu ya des manquements graves yoo xamante ne bi c'est élémentaire en matière d'élaboration budgétaire ou bien d'exécution budgétaire ou bien d'évaluation budgétaire puisque nous parlons de compte administratif voilà. Hmm. léegi gis nañu temps yi rubrique yi tout le monde en parle. subvention aux associations culturelles. Hmm. gisaat nañu itam autres frais transport. 44 hmm. millions 500. cabinet du maire gis nañu 49 millions et quelques ñu gis nañu tamit secours aux jeunes des en ñu gis 103 millions. mu nekk question boobu ñëpp tout le monde dañuy laaj rek tout le monde ñu koy laaj. léegi yow loolu ban jàng nga si am. te paiement effectué ça veut dire que xaalis bi ñun jot nañ ko paiement effectué loolu lay loolu lay loolu lay signifie si biir code administratif. waaw mais paiement effectué nag boo ko xoolee da ngay xool ak quel pourcentage dans le code administratif ils ont pris le soin de mettre les pourcentages d'exécution il y a des pourcentages qui ont atteint 100 pour cent maanaam le plafond y en a yoo xamante ne bii ils sont à 80 pour a yoo xamante ne bii ils sont à 50 mais gis naa ci yu bari yoo xamante ni dem na ba cent pour cent. sept cent millions. Hmm? Hmm. mais un milliard quatre vingt douze millions laa am loolu laa recouvré. Hmm. maintenant li ma recouvrer nan laa koy dépensé en tenant compte que j'ai un gap. léegi lan mooy doon sama priorité lan laay ni lan laay bañ a def ak lan laay def. comprendre nga li ma la wax. la demee un milliard sept cent laa soxla am na un moom laa budgétiser. am na un milliard quatre-vingt-douze millions léegi nag am naa gap naa dans ce gap damay xool man lan laay def lan lay def à moitié ak lan lay ñàkk a def ni li ñu ñàkk a def santé ci la bokk. mais santé gis nañ benn post santé bu ñu def jéggi à péage aussi ah. man man waxuma ay ay man man ay chiffres ak li dekk ci document bi laa lay wax. Mhm. moom lay commenté. on commente les chiffres. les chiffres et ce qui est inscrit dans le document. 101 millions la ñu def ci document bi def ko ci compte 705 bu santé moom la def en prévision mais en exécution zéro ils n'ont rien mis là-bas au niveau de l'exécution dans le compte administratif ça veut dire que les 101 millions yu ñu prévoiroon pour def ko ci santé bi ñu demee ba ci biir xam ne recouvrer ñu suffisamment d'argent ñu ne donc santé bi nañ ko bàyyi tu tu comprends ok les vingt trois millions par exemple ñi nga xamante ne bi moom lañu waroon dugal ci grosse réparation scolaire ñu ne nañ ko bàyyi boobu naxaar santé naxaar éducation naxaar mais jël quarante quatre millions yóbbu ay nit màkk loolu seen priorité la ils en ont fait une priorité c'est la raison pour laquelle dépense boobu ils l'ont exécuté à quatre vingt quinze pour cent parce que <laughs> quarante cinq millions la ils ont consommé quarante quatre millions cinq cent donc ñoom loolu lañu def seen priorité. mais mais mais mais d'après d'après un citoyen est-ce que tamit euh, logique na ñu jël xaalisu askan di si yóbbu nit màkk. non bon en fait euh, man euh, personnellement. bañu ma ko bañu ko su fekkente ni bii mairie bi jël na ay priorité régler leen ba pare parce que y' li ma la wax sànq y' a des priorités vitales. mais yan comme comme yan priorité. comme li ma wax sànq comme li ma la wax léegi. tey jii bu entre. jël 101 millions nga def ko ci santé ak jël 44 millions nga def ko ci bi màkk luy priorité le choix est vite fait c' est de régler les problèmes sanitaires parce que tey l' année dernière comme que c' est le compte administratif 2019 l' année dernière bi mu tawee le centre de santé de Petit Mbao était envahi par les eaux envahi par les eaux maa fa dem maa ko gisal sama bopp. loolu xëy na bu ñu consacré woon cet argent là effectivement pour les centres de santé xëy na centre de santé boobu dana gën a fonctionnel dana gën a accueillant dana gën a rafet dana am aussi les équipements ak un plateau technique bu adapté aux besoins des populations grosse réparation scolaire du priorité moom ak les luy priorité ak achat de billets Makka les jeunes se sont levés parce que l'école est dans un état de délabrement avancé la jeunesse très consciente s'est levée pour képp képp pour réhabiliter école bi dem naa ba ba visiter seen condition yi conditions yi école bi meloon ma di leen ci féliciter parce que ay jàmbaar lañu mais la priorité elle est là elle est là mooy l'école Mourchek de Petit Mbao avait besoin de de de, de l'appui financier de la mairie pour ñu réhabiliter ko defuñu ko. ñu jël seen priorité teg ko ci leneen. ma dë may ma. vas-y. école Mame Wassou Seck xam ne xam naa fa man école yi xam laay wax. école Babacar Cissé xam ne pour ñu pour ñu ubbi rek il faut les gens se lèvent pour ñëw jàpp ci pour mu set pour évacuer les eaux mais loolu yëpp amuñu le minimum nécessaire pour que xale yi mën a jàng correctement mais loolu mooy suñuy priorité tout ça on met ça de côté on amène des gens à la Mecque ça c'est sérieux fi muy termine mooy gis naa ci budget bi ci compte administratif bi des choses bizarres bizarres laa tuddee mooy lan dépenses diverses man je n'ai jamais vu fu ñuy defee un compte administratif di ci def dépenses diverses amul fenn. est que nekkul loo xam ne lu ñu foogul woon la. waaw je vais t'expliquer. Hmm. dépenses diverses mën nga ko def. dans une prévision budgétaire. Prévision budgétaire. Mais maintenant, ça, on peut le prévoir, on peut le permettre au niveau de l'élaboration budgétaire. Mais boo exécuter, pas pareil. Vous rendre compte avec un compte administratif. Est-ce que vous avez fait Pour être plus simple, def naa dix millions dépenses diverses xaw ma lu ma ci jënd mais dama ko ci def au cas ma dem ba ci année bi jot taw bi taw inondation am biir mbaaw lan laa njëkk xalaat pour jënd ko ay moto pompe mhm. mais su ma jëndee moto pompe ba pare su may def compte administratif est ce que dama war a bind bind foofu dépenses diverses ma war bind foofu moto pompe wala bu ma defee dépenses diverses def ci beneen rubrique bind moto pomp def moto pompe bu nekk ñaata lay jar bu fekkente ni bi benn moto pompe laa jënd ma xam ne benn moto pompe laa jënd si 10 millions yi mais li nga xamante ni bi mooy li inconcevable lu kenn mënul a imaginer mooy jël dépense diverses def ko dans une prévision budgétaire ba pare ñëw dans un compte administratif di fa bàyyi dépense diverses alors le compte administratif c'est pour rendre compte de l'exécution budgétaire le divers là que tu ne connaissais pas à l'élaboration maintenant tu le connais puisque tu l'as constaté tu le loolu pour moi c'est scandaleux man je pense que en gros waxoon naa ko au cours d'une émission le véritable problème de cette mairie c'est la transparence yàlla euh, te loolu du encourager nit ñi pour ñu intéresser wu sur la gestion de la mairie te aussi ça ne règle pas les problèmes de la cité. donc on peut dire euh, suñu jàppee si kàllaama yi nga wax ni donc transparence dafa manqué si biir gestion mais loolu mooy loolu c'est la réalité transparence mooy problème donc bu suggère la ngay suggérer en tant que citoyen dëgg bi may suggérer en tant que citoyen mooy d'abord def l'orientation budgétaire man foofu la problème bi nekk c'est le départ débat d'orientation budgétaire boo xam ne dafay sincère ngay jël problème yi dëkk bi véritablement teg leen sur la table problème yi mbaaw nit ñi xam nañu leen c'est des problèmes d'assainissement c'est les problème au niveau de l'éducation au niveau de la santé loolu ñett yooyu c'est des problèmes prioritaires assenissement éducation santé hygiène publique yooyu nga def leen en priorité régler leen en fonctionnement comme en investissement et surtout nag en investissement surtout en investissement def fa ay crédit suffisant moi je pense que un budget boo koy defal prévision bi de un milliard sept cent millions pour man un milliard cinq cent millions investissement la war nga jël deux cent millions nga fonctionner ci loolu pour moi ça suffit pour une mairie pour le fonctionnement d'une mairie deux cent millions suffisent un milliard cinq cent millions nga injecté ko ci ay investissement yu wóor soo paree nga inauguré nga tuddee ko sa bopp sax bu neexee mais nag jëriñ askan bi rek surtout en investissement def fa ay crédit suffisant moi je pense que un budget boo koy defal prévision bi de un milliard sept cent millions pour man un milliard cinq cent millions investissement la war nga jël deux cent millions nga fonctionné ci loolu pour moi ça suffit pour une mairie pour le fonctionnement d'une mairie deux cent millions suffisent un milliard cinq cent millions nga injecté ko ci ay investissement yu wóor soo paree nga inauguré nga tuddee sa bopp sax la neexee mais na jëriñ askan bi rek loolu mooy le problème te loolu mooy la solution suñu bëggee véritablement régler problème population bi mooy l'orientation budgétaire lan la nit ñi bëgg lan mooy problème yu dëkk bi nan la ñuy def ba régler ko fan la ñuy injecter les milliards que nous avons fan la dugal pour mu mën a population bi mën ko sentir fa ñu nekk loolu mooy euh, la solution xawma comment ils organisent leur débat d'orientation budgétaire xawma ndax c'est des gens qui se réveillent en bas ou pas parce que ça m'étonnerait parce que les problèmes sont là problème yi mbaaw ñu nga fa les gens ne les règlent pas ils vont essayer de régler autre chose dem ak masul nekk priorité commune de mbaaw le budget que nous avons ne doit pas servir à régler ce genre de problème ce genre de dépense de prestige nous avons des priorités vitales comme je l'ai dit wu ci loolu loolu solo te yaakaar euh, il nous faut véritablement aller vers un changement te am naa yaakaar bu baax a baax a baax ne Abdou Karim Sall ak équipe bi nga xamante ni bii moo ko wër nous allons véritablement vers ça pour apporter un changement réel. mais mais mais mais Malick li nga wax léegi ci ban aspect ak ci ban aspect nga ko war a mën a teg ba nga xam ne waaw lii war na mën a nekk mooy dañu kàddu bi nga wax ni tax mu war a mën a nekk ah. mooy c'est un travailleur le ministre Abdou Karim Sall liggéeykat la bëgg na mbaaw bëgg na def ay résultats ci biir mbaaw. e il a une bonne équipe autour de lui pour réaliser tout ce que je viens de dire comme projet loolu rek la. ok Malick ñu ngi jaajëfal maa ngi ñaan nag. tontukat yi nañ ma tontu sur les points que j'ai abordés ñu bàyyi débat de personnes yi amul njëriñ lu ñu yóbbu fenn.